ila yawmi diin assalaamu aleykum wa rahmatullahi bokki jullit yi ginnaaw bu nu sante yàlla sunu borom julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bu di bisub ajjuma di ñaar fukki fan ci rakki gàmmu ci atum junni ak ñeenti téeméer ak euh, ñeent fukk ak ñett di dellusiwaat ci waxtaan woo xam ne ajjuma yi weesu sunu bokk yi nga xam ne ñooy toog ci jataay bi di laayante biir ak yéen waxtaanoon nañ ci muy asaka waaye xam ngeen ne gaaw bi weesu rek së sëñ bi dafa joxe ndigal ndigal loo xam ne la mu wund moo di taxawal lu ñuy wooyee kër asaka yi nga xam ne gaaw ca ngoon lañ ko doon siiwal di ko jottali waa réew mi ak waa àdduna muy lu am solo loo xam ne moo waral ñu dellusiwaat di ci wax waaye daanaka lu ci matoon a wax rek bokk yi jiitu waxoon nañ ko waaye dañuy dellu rek di waxaat ne asaka moom kenn mënta lay ba wax lu dul wax rek ne ponkub lislaam la boo ponk ponkub lislaam la rek wax ji ferenklaayu ndaxte alquran da koo andi sunna indi ko boroom xam-xam yépp maase ci alquran tudd ko lu baree baree bari tudd na asaka fanweeri yoon yoo xam ne da koy ber boole na ko ak julli tudd leen ñaar fukki yoon ak juróom-ñaar wax na ne wa aqimu salaata wa aatu zakata warkau maa rakiin bu ñu demee ci sunna ngën ji mi def dafa wax ne lislaam su doon euh, mbaar moo xam ne ay kenu moo ko téye ay jën moo ko téye juróomi juróomi jën ñoo ko téye ba leen di lim da caa boole joxe asaka boroom xam-xam yépp itam maase ci ne azaka farata la te ponkub lislaam la sëriñ bu mag bi it foofa rek la jaar wax ne islaamukum yaa ayyuha sigaaru liman lahu dunya wa tilka daaru dikrul ilahi wa salaatun wa siyaam xajjun zakatun moom itam juróomi jën yi nga xam ne ñoo yenu lislaam mu andi ko ci baytu bayit ñaari baytu yooyu yi azaka nag doonul loo xam ne nit ki ci mbaaxam rek akuk laa biiram da koy génne rek jox ko ña ko soob waaye day loo xam ne da koo sëñta bañ ndax bu bañ ne farata la la la wax ji jeex bañ ne ponk lislaam la lislaam wax ji jeex kon da koo sëñta bañ ndax yàlla da cee gàll ab yar te su ko génnee yàlla du ko jariñoo waaye da koy delloowaat ci ay bokki jullitam jaamoo ko yàlla ndax mën nañoo jaamu yàlla ci jaami yàlla yi asaka suñ ko dee joxe nam ware dana tax ñàkk wàññi ko lool dana tax ñi amul liggéey ñu bari am liggéey dana tax ñi seen bët xonq ñu mën a fomp seeni ronqoñ dana tax jirim yi ak baayo yi ñu am ñu leen saytu dana tax daal ba jafe-jafe yi nga xam ne dafa am ci jamono lu ci bari dana mën a saafaraw ndax nit ñi dañoo war di geesonte di bàyyante xel yàlla mi leen sàkk ba koo seen xàmmee ko ak moroomam ndax dañuy wuute kii dafa day njool kii day gàtt kii day xees kii day ñuul noonu ñu wuutee seeni man-man ak seeni am-am ak seeni pexe ak seeni dugg-dugg noonu lay wuutee moo tax yàlla waxoon ne wallahu faddala baadakum ala baadin fi rizq su ko defee kon ñu xam ne ponk lislaam la soo dee baykat soo liggéeyee ba far mànku na xam ne la nga bay su matee nisaab asaka caa war te sooy génne asaka ja fukkeel ba ngay génn loo wàññi rek juróom-ñeent fukkeel ba nga jox ko yàlla gannaaw am nga nisaab bu dee jur bu dee jur gu gàtt gi soo ci amee ñeent fukki muy xar muy bay nanga xam ne am nga nisaab asaka da caa war bu dee nag soo ca amee fanweer nanga xam ne am nga nisaab asaka da caa war boo dee yaxantu nag di commerce di jaay ak a jënd moom itam soo amee nisaab nisaab bi nga yor ko ren ba déwén na nga xam ne asaka da caawar nisaabu nag kii commerce di yaxantu di jaay ak a jënd ak lu mën a jaay ak a jënd gannaaw loola dafa dagan na xam ne suñ koy xayma ci wurus lañ koy xaymaa te buñ ne wurus nag or mooy or or nag dafa am karaa yu bari waaye ba ñuy wax vingt-quatre kara te lañ koy xayma bu fekkente ne li nga am daal téye ko ren ba déwén mën nga cee jënd juróom-ñetti fukki garaam ak juróom yu or 24 kara na nga xam ne am nga nisaab kon 85 garaam ci or 24 kara soo ko mënee jënd am nga nisaab tey jii nag di ajjuma di ñaar fukki fan ci rakki gàmm biñ koy gëstu dañoo gis ne benn garaamu or 24 carats mi ngi jar juróom benn junni ak juróom benn téeméer ak juróom ñeenti dërëm ak ñetti fifteen juróom benn junni ak ñeenti té ak euh, téeméer ak ñeenti dërëm ak ñetti fifteen mooy garamu or 24 carats loolu ma wax nag moom ngay multiplier ci quatre quatre vingt cinq grammes yi ñu waxoon léegi mu jox la deux millions huit cent quatre vingt douze francs CFA kon ku am deux millions huit cent quatre vingt douze denc ko ren ba déwén loola mooy nisaab war nga caa génne asaka boo ca génne asaka nag loola da nga koy séddale ñeent fukk da nga koy diviser par quarante su ko defee euh, lu mu la jox mooy asaka ja nga war a génne. kon daal kiy jaay ak jënd su amee nissaab ren ba déwén day xayma la mu yor ca marchandise seet la mu denc ca xaalis loola lay boole gannaaw nissaab la moom lay diviser par quarante la ca génn loola mooy asaga ja nga xam ne moom la war a joxe